Mamadou Mohamed Ndiaye cirë ngeen jëf Adama Gaye borom poste bi ñuy mbambaka jaabaajonge ci réew mi Le Quotidien nee nañu zis bi far na ko poste mu dem rëbës démb la ko gàll tuumay mbind mu àndul ak ite gën a xotti war may njiit réew mi inculpé ko mandat dépôt ko jël ko yóbbu rëbës Les Échos nañu Adama Gaye guddéem gu njëkk fanaan na ko démb ca kasu bu rëbës te bu moytuwul nag dana fa def ab diir ndax zis bi ba mu ko mandat dépôt ba pare dafa doxee jël tatatar Adama Gaye ba mu bëggee dugg Macky ak ministre de la justice justice bi da ko yemale enquête dina kay nañu Adama Gaye dóor nañu ko mandat dépôt bi Vox Populi nañu ma nga ca rëbës source waa nañu ndungu sin la fanaan l'observateur di ñu leeralal ana lan la Adama Gaye guuxal Macky ba tax mu dëkki ko yekk musiba ak mbelengaan ci réseaux sociaux yi mbañeel gi Adama Gaye bañ Macky Sall l'observateur nañu mi ngi jugee ci gise gu mu bëggoon a a nga waroon a amee ca palais ba palais ba coowal détournement lu rëy ak Doudou Sarr ñaar la ñuy tuumal détournement ak surfacturation bi président Macky Sall ngir waajal élection présidentielle 2019 yi waa palais dañoo commandé woon 20 000 livres ci benn waay bu ñu naan Amar Diop Amar Diop def ay dugg-duggam financé ko defar ko livrer leen weeru décembre ba léegi ñu di ko dawloo waa ji mënut a fexe ba jot xaalisam bu demee ca palais ba ñu ne ko demal seeti say Guèye bu demee ca Seydou Guèye mu ne ko demal seeti Doudou Sarr ñang ñaar fukki million fukk ak ñett yi ñu ko ameel mënuñoo fexe ba fay ko benn bés ne ko ma leen di joxaat a jox fayu leen ko ba léegi ki mu doon waxal ci ko commande boobee fay nañu ko bu yàgg demal seeti Seydou Gueye moom la ñu joxoon xaalis bi Amar Diop ne ci laa demee ci Seydou ci saa si sëkkatal ko takk taxawal ko ñettamal ko mu yëkkati fukki million jox ma desel ma fukki million ak ñett Amar Diop ni li ci gën a yéeme mooy vingt mille livres yi ma leen jox jaay leen ko vingt-trois millions Seydou Gueye ak Doudou dañu ko surfacturé def ci seeni facture ne 60 millions laa leen jaaye livre bi dorog bi ak dorog bu bari ba ñu jàppoon ca poorum Dakar l'observateur mi ngi ñuy wax ne enquête ba ca waa police di def am na leneen lu ca feeñ la ca feeñ moo di dorog bi jëmuloon fenn fu dul fii ci Sénégal senegal gii la jëmoon dañu ko dugaloon ci oto yu waroon a dem Angola ak ca Ghana ngir dorog bi bu yegsee ci poorum Dakaaru am ñu dugg ci poor bi sol ko ci saako génnee ko ki nekk ci ginnaaw loolee lépp di bi l'observateur nee nañu enquête ba feeñal na ne benn doomu Sénégal la moo ci ànd ak waay bu fekk baax Amérique latine mu di ab complice am ñoom ñooñee ba léegi kenn gisu leen ñu gisaat ba tey coowal drogue bi ci xët mu njëkku libération benn waay bu ñu naan daaw daba di marchand ambulant moom la enquêteurs yi teg loxo mu wax leen lu yéeme te doy waar ci drogue bi bu ñu koo xam ci kaw moo ko ci dugaloon moo ko ne dafa am drogue bu nekk ca poorum Dakar na ko wutal ay client bi waa police ànd ak moom dem jàppi Ousmane Bare kaw Ousmane Bare dane xamul waa ji police dem këram fekk fa drogue mu ne drogue bi ci benn ordinateur bu ñu ko joxoon mu war ko réparé ci la ko fekk yéene kaay bi nañu ko saytoo càmbar ko mook aéroportum Ndakaaru benn la dorog la tribune nee nañu ngi def lu dara jarul ci xale yi dëkk bi maanaam mineurs yi ab gëstu bu ñu def jëmee ko ci mineurs yi ñu teg loxo ci réew mi atum 2018 wane na ne ci ñetti téeméeri mineurs yi yoon teg loxo ñu leen jàppee ak càcc ci jiitu wàllum dorog topp ci 10 pour cent yëpp dorog la ku ne dorog xel dem ci góoy yu soleil national nee nañu démb ca ndajam conseil des ministres président Macky Sall gannaaw ba mu tiisloo faat gi ñu faat Mazor Tamsir Sané ca Koumpentoum delloo na ko njukkal ca ndajama ba noppit sàkku ñu gën a taxaw ci xeex gi ñuy xeex grand banditisme gi am ci réew mi le quotidien nañu ngànnaay li mu teg ngir bëgg ñu xeexee ko ko moo di fexe ba dëkk bu nekk askan wa di lëkkaloo ak takk der yi fu ñu gisee lu tey seenum xel rekk signalé ko stratégie régionale de renseignement anki dina kay nañu lu jëm ci faatu commandant Tamsir Sané président Macky Sall ma ngay wër ak di wër lu ñu ko def Abdourahmane Ndiaye Adidas mi doonoon entraîneur équipe nationale bu basket bu góor ñi fii ci Sénégal li ñu ko def yéeme na ubbil sursuwa ma nga fa xam ne bi ñu koy dàq waxuñu ko dara dafa xëy fajar di jàpp ngir waajal waxtu yi fa mu doon jàppee fa ko jabaram fekk ne ko dàq nañu